bi mu nekkee di borom jamono di nit ku xam yàlla suñu borom jox ko al ismul azimul azam am nag ci maghrib benn aalim boo xam ne dafa jàng jàng jàng yër a yër a yër nga xam ne mënatuñ koo gàngam lekk kenn wutale na leen wutale boo xam ne ni mu wutale nit ñi ci adduna ëppantale wërsëg yi ëppantal fan yi ëppantal kattan yi ëppantal wér gi yaram ni mu ëppantalee ëppantalee daraja yi nan li mu ëppalee yomal xiyaama ko raw ndax nee na wala laaxiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdilan alaxira moo gën a rëy ay daraja ca la daraja yi gën a rëyee ca la gën a lënt ba di ëppale te gis nga fii gis nit koo xam dana xëy di sonn soo bajant soo lu mu añate ko nga gis koo xam ay milliards lay denc xam nga ne ñaar sore nañu nga gis nit koo xam day juddu bu am ñetti waxtu mu dee gis koo xam day dund téeméeri at ak lu topp xam nga ne ñooñu seen at ëppante na nga gis nit koo xam ne suñu borom daf koy jox daraja joo xam ne waxtu mu jógee ñu téye ñëpp kenn du jaar ci yoon wi muy jaar ba mu jàll ba dem nga gis koo xam ne kenn du ko romb ba xool ko wala da ngay doo yëg ni sax mu ngi fi suñu borom nag nee na ni daraja yi ëppantee ci àddina la rawe kon na nga xam ne suñu borom gën a lena ndax sàkk na mbindeef moo xam ne mas na tax mu farwaasu sëpp mu di nuuxin alayhi salaatu wasalaam mu mu labal ñi ko bañul ñëpp te mbindeef la suñu borom sàkk ñaari jaam xam ne ñoo yem ci moom képp mu daganal kii mu nar ko di ko war di ko sëf wala mu di ko rendi di lekk te du ci am benn xaq ndax gënal gum gënal kii naka noonu mbindeef yit noonu la leen gënale mu sàkk mbindeef moo xam ne téeméeri junni mbindeef yoo xam ne kenn ku ci nekk tooñ nga ko tooñ ko xam ne war na laa yóbbu safara ba safara yey na ci yow mu ne ko baal leen mu baal Abu Talib ibn al-Makki wax na ci Qudul Qulub ne inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima saat lam yuqimha mu ne suñu borom am na jaam yoo xam ne buñ ne ko woon suñu borom sonnal saa bu saa taxaw saa du taxaw kon nag képp koo xam ne ci sa réer nee nga mbindeef mënalul morom ma dara ak réer daf laa wër loolu moo mooy aljahlul murakkab mooy réer ba noppi taxamuloo ne réer nga ndax xaqiqa ak sharia dañu bokkiwul sharia mooy lan mooy loi loi moom ñëpp a ko bokk public la waaye nag xaqiqa mooy sa digganteeg président de la république bi wala ministre bi yoonu kenn nekku ci la ko sob lay defal gannaaw yàlla moom moom moom lépp da lu ko neex def te kenn du ne ko lu tax nga def lii te moom te dara amul du am fu mu yem nga xam ne li moom fii la yem léegi tañu ci dara amul jaam bu ko neex mën na laa defal lu ko sopp te yoonu kenn du ca nekk waaye bépp jëmm boo xam ne bii daya dil nga ci yàlla tànnal boppam sopp ko jox ko kattan jox ko yërmande gërëm ko woyfal nga lu yàlla diisal réere gi ñu réere mbirum rububiya ak ubudiya mooy li waral te la muhaq bi li ukmihi xanaa gis ngeen ne nee ñu Muhammad sallallahu taala wa moo tax suñu borom bind lépp lu mu bind xanaa kon ci tax suñu borom bind jaam ñëpp dara jaam ëppante naag noonam yi nga xam ne mosu ñu jëf dara lu soob lu ko neex mësuñoo sàkku yërmandeem mësuñu ko nangoo ak nguuram mësuñu koo jaamu xanaa man di mu nekk ci diggante boobu fii la gënal leen te war a fa la mën a yem yonent bi sallallahu alayhi na kenn nit ci sama xeet wi dana ram mu yomal xiyaam lu toll ne giir rabi ata gépp ak giir mular gépp maanaam lu toll ne wolof yëpp ak tukulóor yëpp kenn nit dana leen ram mu yomal xiyaam nee ñu law kustu sirrul wali la ubida waxoon naa sànq ne waxuma xutbul xawsu wali ci boppam rek laa ne ku ne du wali la mooy saxal nga ne xaritu yàlla la saxal nga ne aji texe la yomal xiyaam saxal nga ne borom mujj bu rafet la kon wilaaya ci boppam ko yàlla jox jox na la lu rëy waaye nag awliyaaw yépp ay martaba la ñu amee martaba yoo xam ne dafa wuute ni nit ñi ëppantee wërsëg ni ñu ëppantee ay fan ni ñu ëppantee daraja ndax ki nga xam ne mooy doon njiit li nga xam ne room bi def yépp ci loxoom lay nekk nga xam ne xeli picc yi mu ngi mu tiim nga xam ne wund du rey janax mukk lu dul ci ndigalam buñ ko waxee ku ko xamul dafay daal di defe ne dañ ko bëgg a jaawaleeg yàlla te loolu du dara ci yàlla ndax am na ci awliyaaw yi ku ne bu la suñu borom joxoon yaqin ba mu jeex bu la suñu borom mayoon nga ram mu jaam ñëpp ku tu ku ku gëm ak ku gëmul ñëpp it daanaka buñ ko seetee ci yàlla li mu amee joxu la dara kon nag yàlla dafa bari la te yaatu kon bu sëñ tuubaa ne xasain rabbi futtihat li wa zahzahat li gayri al ada dunya wa uxra wa barsaxu danay ñëm ñëpp nee na magasin yi boromam suñu borom ubbil na ko ko te àddina ak alaxira ak barsaq soral na ko lor kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi da ngeen ma jéggal ndax fi ma nekk maa ngi miir te sama wérul waxtaan wi gàtt na bëggoon naa wéy ba biir set wala mu njëge lool waaye nag ci mu ne daal ba tey loolu ma tawatoon ci colloque bi ba léegi moo ne ci man li mu bëggoon wax yëpp na ma ko bëggoon waxee mënewu ma ko ko waxee la mu bëggoon wax yëpp it ah matul ngeen ma kon rek bu tàll ni ñaan yàlla na suñu borom def dëgg dëgg dëgg taalibe suñu borom def nu bokk ca way xettali ku ñuy xettali ji ëllëg yàlla na suñu borom boole ci borom dara ji ëllëg yàlla na nu fegal mépp ndox yàlla na nu won aw yoonam yàlla na nu booleeg ay soppeem yàlla na defal mujj bu rafet yàlla na neexal suñu àddina ak suñu alaxira te xiir nu ci boppam lépp lu ñu yàqal yàlla nanu borom boroom féewaleeg moom bépp jullit yàlla na defal sutura si àddina ak alaxira mucc àddina ak alaxira jàmm àddina ak alaxira texe àddina ak alaxira aajo ji faju ak mbir mu jub bi jaay sayyidul wujud wa alamin sallallahu alayhi wa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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رزقك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس ببعيد فنناديه ولا بغافل فننبهه ولا بناس فنذكره ولا بنعيم فنوقظه لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تدرنا في مقامنا هذا ذنبا الا خفرته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه من هواه الدنيا والاخره الا قضيتها ولا عبد إلا أهل التوبة فإنك تقضي لا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا بلنا هدى رشد وتوفيق يا الله ودمر كل اعداء تدر قبل رسولنا يا الله ولا من على كل شيء قادر ما ارسل عظيم ثابت القهر يا الله اني سالتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبه قبلت مع نجمه رفعت مع زوجه صلت بدين وكمل كل ما ننهو ونقصد لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي سعد وذي حرم ويسرا كل ذي تاسير يا الله واسلك بنا نهج رشد واقتنا زلدا واطلق بنا الجن والشيطان يا الله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 اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا على صلى الله عليه وسلم jërëjëf ماي jërëjëf yal يلا yàlla yàggal sa taxawaay